نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا الضباب يمحو عتم الليل المظلم del siwaat nañ ci tafsir bi bi idnillah tey ñu ngi tàmbalee ginnaaw suuratu taaha ñoo ngi ci war a tàmbalee bopp aaya 35 baada audu billahi min alsheytaani arrajim قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساهل فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك مهبة مني ولتثنى على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى qaala rabbanaa innanaa naxaafu an yabruta alaynaa aw an yatgaa qaala laa taxaafaa innanii maakumaa asmau wa araa فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى الحمد لله رب العالمين نوانجي bàyyi ko woon fi boroom bi taala wa tabaarak di nu xabaaree ni Muusa alayhi salaam boroomam tànn na ko yónni ko Muusa ñaan boroom bi ay faveur bokk na ci faveur yi muy yàlla feccil ko làmmiñam ba li muy wax nit ñi mën koo dégg ndax addaaciyatu ila allah ak ab yonent waruñuy wax ñuy laajaat wax ji la seen wax dafa war a leer ndax mbiru yàlla lañuy waxte moom la ñuy joxe li ñuy jottali nag bu dee bàyyikoo ci yàlla di bàyyikoo ci yonent bi war naa am ku ko mën a jooxe koo xamante ni làmmiñam day set waxam day leer kon mu ñaan yàlla ne ko wax wahlul uqdatan min lisaani xaw qawli beneen bi ne ko dama gëj ca dëkk ba te li may def nii woote la ku wét waru koo def <clears throat> kon maa ngi sàkku sama frère ba ca dëkk ba nga yónni ko boole kook man ndax mu dëgëral ma ndax kenn laa te su ma demee mën nañ maa sonal kon naa ànd ak koo xam ni dana ma dëggal su ma waxee mu wax ñu xam ni wax jiikat lu mat la ñu ñor la doomu aadama yi dañoo yomba sonal ku dëkkul ak ñoom dañoo yomba fitnaal ku amul fu mu wéeru rawatina bu fekkee dangay dem ci buur ak ñu mel ni ñoom loolu nag boole na ci ngir yow yàlla loolu boo ko defee ma ànd ak moom ñu lay tudd lu bari waaye di la sàbbal loolu la ko ni kay nu sabbihaka kasira ndax ñu mënkat di la sàbbal te sàbbal dafa bokk ci jaamu yàlla gi yàlla gën a bëgg di la tudd bokk na ci li yàlla gën a bëgg kon nit ki dafay góor góorlu ji tudd yàlla ci waxtu yépp su ngeen gisee ku dul ahlu sunna ahlu sunna la dàq tudd yàlla mas naa tey wax ak benn wootekat mu ne moom lenn moo ko metti ma ne ko lan mu ne ahlu sunna duñu tudd yàlla lu bari ma ne ko dégguma li nga wax de mu ne ahlu sunna yi duñu tudd yàlla lu bari ma ne ko loo jublu ci loolu mu ne ni ma gis paay di def yore seen kurus toog di tudd yàlla lu baree baree bare ma ne ko yow anta fii ko subaha yow da ngaa amee ay subaha xam nga luy subaha bi mooy danga gis ñee ferenkulaa yu yore ay kurus di ko def mu naa ah, ma ne ko ndax loolu yonante bi doon na ko def mu ne non jubluwuma ci bidaa ak ñàkk bidaa mais dañ ko dul def lu bari ma ne ko tudd yàlla lu bari ahlu sunna yi rek a koy def mu ne ma ne ko bëri na ko yore kurusam di wird xamul nu ñuy duggee duus bëri na ko yore kurusam di wird xamul nu ñuy génnee duus bëri na kuy tudd yaa latiifu ba bët set bu séqeeg soxnaam xamul lan la war a wax mu ne ma ne ko li tax ñu ne la axlu sunna ñoo dàq tudd yàlla buy dugg oto day tudd yàlla su wàccee tudd yàlla ñii ngay wax nii ku ci dugg marché xamul ban zikr la war def pour tudd pour dugg marché te ahlu sunna buy dugg marché dafay tudd yàlla kon ahlu sunna yi waxtu wu nekk jamono bu nekk ñu ngi tudd yàlla donte kay mën nga ne kay xanaa di bëril kooku yooyu la ñuy wax waaye bëril ko moom ñoom ñoo ko def loolu moo tax Muusaa ne borom bi kay nu sabbihaka kasira wa nadkuraka kasira ñu mën di la tudd di la fàttaliku waaye di la tudd ba ñépp xam ni ku yeeyee ñu tudd la li tax nag ñu war a def loolu man ak Muusaa ak yow ak keneen nag dañoo war a jàpp ne innaka yow yàlla day kunta nekk nga basiran di aji gis bi naa ci ñun gis nga soo jàppee ne yàllaa ngi lay gis dana am loolu dënku rus saxaaba yi loolu lañu rawee woon ñu bari dañu àggoon ci état bu rus a def bàkkaar àggoon ci état bu rus a def ñaawteef lan moo tax ndax dañoo jàpp ni yàllaa ngi leen di gis waxtu wu nekk boo ko seetloo léeg-léeg nit bu wéetee def bàkkaar dina am koo nekkal da ngay rus a def bàkkaar xam nga lu tax même boo ca dagalul yàlla jëmm jooju ngay rus waaw bu fekkee jëmm ji ngay rus ba doo def bàkkaar ki la bind bind jëmm ji waroo ko woon rus moom moom moo gën a yooyu ñu rus ko moo tax mu ne ko innaka kunta bina basira yàlla yow day da nga ñuy gis xaala borom bi tontu ko ne ko Muusaa xat ca dëgg-dëgg uutii te joxef na la su laka sa ñaan la nga doon ñaan may naa la ko mooy sa frère far naa ko yónni léegi jeex na fii nga ma ko waxee sa frère yëgut woon lu xew waaye bi ma lay jox xabaar bi nii sa frère jot na xabaar bi allahu akbar diggante tuuri Siina ak Égypte na mu soree yàlla di wax ak Muusa ne yónni naa la boole ci sa rakk ndeke rakk ji tamit jot na message bi Muusa day agsi ne ko ah, man de yàlla yónni na ma Moussa ne ko waaw loolu laa ko ñaanoon kon gis nga mbiru yàlla ngoog mbiram gaaw gi mu gaaw dafa jéggi dayoo ba pare borom bi ne Moussa may naa la lu bari nag waaye waaye Moussa nag xam nga bu yàlla seetaanoon Moussa continuer waxtaan ak yàlla da ko neex di ko ñaan mu lay may daa neex mi ngi mel ni nga nekka ni ren ne ko dama bëgg nga may ma 10 mille francs mu génnee nga seen lu ëpp ay 3 millions nga ne ah, soo mu doon loon 15 millions dama xaw a kii mu dolli nga ne ko pourtant sama kër gi ma bëggoon jënd maa ngi waxaale de mais sotteegul xam nga di ñaan kuy maye te la mu lay may du ko jeexal ñaan nga du jeex waaw moo tax bi ko Moussa ñaanee frère ñaan ko mu dindul ko làmmiñam ñaan ko ñu dégg waxam yàlla may ko ko mu ne ko dama bëgg nga boole ci sama frère nga yónni ko ba pare nag yàlla na ko eh Moussa wala xat mënan naa aleyka nag dëgg dëgg dëgg nag defal naa la teraanga yu bari nag <laughs> waaw dëgg dëgg li ci topp mooy nag goreel nag te ñaan gi na na yem nag comme ñaan nga li nag na doy nag allahu akbar ne ko wala kat manan naa ca dëgg-dëgg kat ahsan naa ilayka def nañu njëkk jëme ko ci yow yont yàlla Muusaa daa am fulla rek bu doon manit noonu laay def de wax dëgg yàlla di ñaan di ñaan rek koy ñaan ñaan ñaan ndeysaan ba ñaan la taabii ba doon ñaan ne ko yàlla maa ngi lay ñaan képp ku nekk mbindeef bu mu dem safara bi mu toogee di ko waxtaan ak moroomam mu ne ko aw ñaan bi de xër la waaye ñaan bu dut nangu moom jarut sori maa ngi ñaan yàlla bu kenn dem safara ñaan boobu jaru ko woon ndax du nangu <laughs> xam nga am na loolu du nangu boo dàqoon a ñaan ci ñaankat yi loo ñaan yàlla mu nangu gëléem de nga ni yàlla damaa bëgg nga rey ko jaaxaanal ko yàlla mën na ko waaye ndax yàlla na fi nekk di la rey ak yéem di ko jaaxaanal dafa am loo xamante ni xëru doomu aadama te yóbbu nit waaye xam nga ni lii du lu naturel yàllaa koy def mais la muy def nag loolaay far di am moo tax mu ne ko wala qad manan naa ca dëgg-dëgg nag Muusa xéewalal nañ rafetal nañ alayka jëm ci yow marratan uxra beneen yoon lan la ko bëgg a fàttali borom bi daa bëgg a fàttali Muusa jaar-jaaram ndax Muusa balaa defati mbaa wax mu fàttaliku ko su paree it fàttalikul sa jaar-jaar waaw defal naa la xéewal yu bari defal naa la teraanga yu bari kaay ma wax la is aw xay naa jamono ba nga xamante ni ilham na ku dul yonent yàlla du lay wax yu da lay yàlla dafa jëfandikoo baatu wax yu foofu ne ko ilham naa mooy wax naa ilaa ummika ak sa yaay sa yaay moo nga xamante ne am nañu ne yu xaanisu ñii ne yu kabidu ba indi ci ay faidatu ummu muusa man xaw ma faidatu ummu Moussa lu muy jëriñ waaw gaa njabarkat yi xërëmkat yi boo demoon ci marché bi na jaay ma faida umm Moussa dañu la koy jaayee lu seer waaye li ma jaaxal ci umm Moussa nag téere boobu boo ko gisee ay tànki jargoñ ak tànki njugub ak lu ne lañ ci def waaw gis nga loolu nag lépp luñ ci jublu rek mooy ab njabar waaye borom bi nee na id aw xay naa fàttalikul ba mu wax yoo ila ummika xoola yàlla jamono bi muy wax yu yaayi Moussa Moussa boobu mu ngi toll ci juddu ne ko nag maa wax naa ko la ma ko wax foofu yàlla da koo nëbb ku yàlla waxut lan la xamoo ko ku bëgg a dëgër fit xam ko it bëriwut njëriñ moo tax mu ne ko id aw xay naa ila ummika maa yuuxaa loolu yàlla defoon na ko yonent bi de fa awxaa ila abdihi maa awxaa ku ko bëgg xam nag da ngaa dëgër fit lu ko yàlla wax yu lan la wax na ko te nee na la mu ko wax la ko wax boo ko bëggee lijjanti sonn yow daal yemal ci la mu ko wax ñu jot ko te mooy alquran kon nag borom bi ne Muusa wax yu naa jëme ci sa yaay xam nga lu ma ko wax dama ko ne an eey Muusa judd na ci waxtu woo xam ni ñu ngi rey góor ñi dëkk bi ñu ngi rey fu ñu toll man yàlla dama lay wan ni jamono bi ñuy rey ku ma buggul nga dee doo dee foofu yàlla kàttanam lay wane yàlla bu bàyyi woon Muusaa juddu ci bis bu ñu rayul nit ñi kon bu waxee ñu ne ko ah sa borom bi de wax dëgg yàlla li mu def du dara waaw <laughs> waaw moo tax yàlla dafa dafa lancé na défi reyal ba mu neex la loo rey ray am koo bàyyi dundalal ba mu neex la loo dundal dundal am koo bàyyi yàlla rek mooy joxe mu mat sëkk daj képp yàlla rek ay séddale mu tolloo ku dul yàlla boo séddalee mu tolloo léeg léegi nag olof tooñ yàlla léeg-léeg mën a gaan bu ko séddale séddale yàlla waaye ndax séddale moom day ñii day am lu bëri ñii lu tuuti xam nga nu muy gisee day gis ne kii daa am alal kii am xam-xam kii amul tus mën nañoo bokk ndey ak bàyyi kii bari la lool kii néew la kee amul dara ñu jàpp ne séddale bi yàlla tollool fekk loola moo tolloo li tax kii am alal yàlla xam na ko te xamoo ko li tax kii néew le yàlla xam na ko te xamoo ko ñoom ñeent bu ñu toogee waxtaan ku nekk di nga am foo sa morom loolu lay mbiru yàlla di ngeen bokk benn kii bëri wërsëg kii néewle kii mën a coono kii mën a liggéey ñu toog waxtaan gis nga borom wërsëg bu bari li am na ku mu ñee ci ñetti ñele da ko dul wax nag ndax xam nga nit a rëy rek nit a rëy waaye xam na ne alal du dara du ko wax ndax mën naa bëri alal te wérut mën naa bëri alal te amul doom mën naa bëri alal këram di jafe-jafe bis bu nekk ñële néew alal am jàmm kon séddale bi yàlla dafa tolloo loolu moo tax yàlla ne yaayi Moussa an eey mën naa mën ne ko iqdi fiihi qissa Moussa nag bu ñu ñëwee ci xasas la ñuy sard yépp incha allah ne ko sànnil Moussa fit taabuut ci kees gi waaw sànni ko ci kees gi kay rayee moo yóbbul ko te du ko rey <laughs> waaw kay rayee moo yóbbul ko te du ko rey olof nee na rëbbkat lu mu rëbb rëbb la ko jaaxal mooy rab wa ko jege loolu keemaanu yàlla la boo doon rëbb nii yore sa fett sa peles di rey nga ni tell sa tànk kéwél taxaw fi doo ko rey loolu lu yéeme la xam nga doo koy danga ne ak ah, kii xës na ba ñëw moom kii moom jeexal na baal ma ko teg ko fi ut keneen fa ngay dem di rey keneen génn na dem yoonam ñaareel bi yërmandeb nit moo mel noonu lu ja lu la jege mënoo ko def dara lu la jege mënoo koo def dara su ñëwoon ba ci say tànk tëdd ne mais mais mais xawma ma kan waaye paaka dootoo ko yëkkati di ko rendi léegi da ngay bëgg xam lan moo ko indil jooy yu bëri yi muy jooy nii loolu ñépp a mel noonu moo tax nag yàlla ne yaayi Muusa tegal ma Muusa ci ndox mi sa yoon tegal li ci def maa koy àggale ah aqdi fiihi fi taabut sànni ko ci kees gi faqdi fiihi fil yamm yenu ko yóbbu ko ba ca ndox ma teg ko ca soo ko sànnee daal fal yulqihi dana ko jot sànneeg al yammu lëgg ma lëgg ma mooy ndox maag vague ya bis saahili ba ca teeru ba gis nga kees googu lu duusi yaatu yaatu duñu ko bërëng di ko daaneel ndax nit a ci nekk xale bu mënta fey buy vague di jóg day ànd ak kees gi buy wàcc wàcc ak moom yéen ngeen nekk 21 personnes nekk ci gaal vague bi lem leen ñu ne juróom fukk dee na ñetti mucc nañ xoolal liir bu mënul dara mënul féey mënul jafandu mënul jàpp tëdd ci kees nga xamante ni kees boo ko nee ëf mu dem géej gi di yëkkati di sànni kees gi di yëkkati di dem allahu akbar moo tax ku xam yàlla dëgg dëgg dëgg doo ko sàggane yàlla ku ko xam loolu mooy sedd sa xol mu ne ko faxdi fii fil yamm boo ko sànnee day fal yulqihil yamm nee na lëgg mi dana ko sànni bi saaxil ca tefes ga bu ko defee nag ne ko yaxuduhu dana ko for dana ko jàpp aduwun noon boo xam ni lii ñeel na ma man yàlla ko koy njëkk for mooy ndax noonu yàlla weesuwul di rey ñi yàlla bind te santu la nga rey leen di rey rek loolu noonu yàlla la te kat aduwun noonu lay doon lëhoo ñeel ko yaayi Muusa nag looloo ko tiital ne ko dinaa ko jox sama noon jox ko noonam ay yaay Moussa xam na ni Moussa moom ca Firawna la jëm loolu moom yaayam xam na ko bi mu ko waxee loolu yaayam xam ni xale ba ca Moussa la jëm waaye nit lu mu dëgër dëgër bu ko yàlla ne maa ngi ñëw léeg mu yëru ne fu mu toll nit a bindoo noonu bu la yàlla nee maa ngi ñëw doo dégg olof léeg bu jàllee ay waay waay yàlla ñëwal te bul yónnee yàlla nu muy ñëwee yàlla mbiram lay indi rek waaye yàlla ñëwal te bul yónnee xaw ma olof yooyu xam ngeen ko wala loolu ki koy faral def ki jàq jaaxle sonn feebar ba amul benn yaakaar ci liñ bindeef mën dégg nga ne ay yàlla ñëwal te bul yónnee yàlla ñëwal te bul yónnee mooy faj ma te bu ma rey yónnee gi mooy malakal mawt <laughs> olof olof muus <laughs> ay waay yàlla ñëwal te bul yónnee waaye nag ah yàlla mën naa ñëw de waaye bu yàggee mu yónnee it nag waaw mu ne ko wa alqaytu Muusa defal naa la beneen kemaan mooy ban sànni naa ci yow mahabbatan cofeel min ni cam allahu akbar ay waay Moussa li muy am réy na de yàlla na ko Moussa maa la bëggal sam bopp oh tototottot subhanallah moom la njabarkat yi jël di ko naxee nit ñi nag damaa bëgg a liggéey sama jëkkër mu bind la wa alqaytu alayka mahabbatan minni ah bi moo ni wa wala yàlla moo ni wa alqaytu <laughs> barki démb daa am ku ma indi lool ma xool ko ree ta jaab mu ne ko moom mu ki mën a lan la ma wax ko ba jàng ne ko damaa xam ne ci fi bii laa war a tafsir bii di ñëw rek ndax waa ji dafa def wa alqaytu alayka mahabbatan nii miim bi mu ubbi ko bi mu ko ubbee ndeysaan bind turu jigéen bi ci kaw bind jëkkër ji ci kaw ma ne ko xam nga lu mu ci jublu mu ne ah, ma ne ko dafa bëgg jigéen ji tiim jëkkëram ba jëkkëram nopp ko njabarkat yi ni ñu muusee dañuy tànn aaya bu tolloog bëgg-bëgg rek bind ko teg waaw noon noonu la ñuy def waaw wa alqaytu ne ko sànni naa Moussa mahabbatan cofeel min nii ci yow ne ko yàlla yàlla ne ko maa la bëggal sama bopp kon jaratul ngay tiit jaratul nga am benn jaaxle ne ko it nag def naa ko it nag ngir lan wali tusna ak yareef la ay ayni ci samay bët yàlla neen danaa la teg ñu yar la ci samay bët mooy xam nga ku nekk ci ñun fan lay yare yàlla gis na ko xam ne ko dara réeru ci mais li mu bëgg a wax mooy dina la indi ci sa noon mu lay yar te du la mënal dara te li ma bëgg mooy am mooy wali tusna ala ayni gis nga ka ngay dem nar koo daaneel moo lay dundal ba nga màgg moo tax olof nee ne ku yar sam kuy yow lay njëkk daan waaw moo boo amee doom yaroo ko balaa mbëkk kenn yow lay mbëkk boo amee sab xaj xaw ma pig bul xaw ma paate bul yar ba mu dëgër balaa laal kenn laal la wala laal sa waa kër loolu moom loolu mooy réglu àdduna réglu àdduna noonu la moom moom moom li nga gën sonn ci moom <laughs> mooy walbatiku màtt la munoo ci dara bi mu ko defee ne ko Moussa ma teg la ñu yar la ala ay nii ci samak sàmm Moussa mu naa ma ne ko bokk na ci beneen teraanga ba ñu la tegee ci géej ga is ca mbecceel tamshi ma ngay dox uxtu ko sa sër muy Mariam comme sa yaay xam na fa nga jëm mu ne maga muusa bu jigéen ne ko Mariam mu ne naa mu ne ko xussiihi doom man mënumaa dem li ma yàlla wax gëm naa ko waaye dama bëgg nga topp ko rek ba xam fu muy teeri Mariam magi Moussa di dox ci tefes gi di xool kees gi di ko bàyyi xel ne iftam si uxtug dox na sa sœur dox na boo déggee ñuy wax alu imran Moussa papam imran la tudd magam Mariam la tudd mariyam menn papam imran la tudd moom Mariam la tudd moo tax léeg-léeg ñu bëri mun nañ koy xaw a jaxase léegi alu imran ñan la ndax Muusa ak famem la walla mariyam ak famem la boroom xam-xam yépp dañu ni Muusa ak famem ñoom ñooy alu imran ala kulli haal bu ci mënti am bu ñu tuddee mbaax danañ ko waxal bàyyi mariyam waaye bàyyi Muusa kenn mënu koo waxal mbaax ndax xamuñu ko xamuñu ko ala kulli haal Muusa Haaruna ak magam baax na mariyam daal topp na Muusa gaal gay dem na di rey di rey ba dëkk bi ñépp tiit na jàpp jouru congé muy àllarba nga xamante ni pale bi moom ci tefes la nekk man li ma jaaxal dama damaa gisagul pale bu ñu deful ci wetu géej xaw ma nag lan mooy cause bi pale yi daal moom wetu géej rek léegi nag xamul tax gars yi da ko ñu koy liggéey war nañ koo wax ñu koy liggéey lu war nañ ko wax léeg-léeg nga wax ne mu ne xam naa piix mi la ñu bëgg ma ne ci la bokk de léeg ñu ne fekk géej moo xaw a gën a dal brise bi ca la bokk léeg-léeg sedd beeg yooyu la bokk waaye léeg-léeg foofu nag moom nañ ko standby ñu bàyyi noonu rek standby moom ku nekk mën na cee xalaat lu mu ko déggee waaw loolu moom ku nekk <laughs> mën na cee xalaat lan la koy jox en daal pale yi moom ci wetu ndox rek lay nekk Firawna génn toog ak soxnaam ci tefes gi di féexlu yónni na gaay ñuy rey mi ngi jaaxaan ah borom bi ne ko danaa la indil koo xam ne yaa koy yar ba mu màgg daaneel la xam nga lu tax dafa wax kàddu bu rëy dafa wax kàddu bu rëy kàddu gu rëy gooy mooy maa alimtu lakum min ilahin lu ma leen yàlla bu dul man ana rabbukumul aala yàlla ku mbëru lu ndaw la lay booleel mu xamal la ni doo dara namrud bi mu bàkkoo lu ko yàlla booleel yoo yoo waaw yoo daal moo ñëw dugg ci bakkan bi weew weew weew lu ne mu def am na ñu wax loolu am na ñu ne it loolu def ko waaye alaakulaa lu mënti am bépp buur bu beew am na lu yàlla teg wallahi président yi ci àdduna bi nii ñi beew ñépp ku la wax dëgg am na lu ko jaaxal te mënu ci dara lu ndaw moo koy sonal ndeysaan lu ndaw man nag bokk na ci sama jàngat président yi seen première natt mooy soxna yi mooy soxna yi doo doo gis gaay yow li nga yore ci alal yilif dëkk ministre bi li mu yore ci alal yilif mbooloo alal bu dul jeex waaye benn jabar rek loolu de mooy bennoo bokk yaakaar bennoo bokk soxna bennoo rek ah ma maa ngi lay laaj demal ci gaa yi wëral ku la ci gën a ponkal benn soxna napp gaa yi ba ñu sonn bu ñëwee madame <laughs> madame non dama tardé dama demoon réunion ah napp nga gaay boo demee sa papay madam napp nga ko waaye madame lay napp ah, madame moo lay napp gis nga mbiru yàlla ku nekk war na cee jàngat lu bëree bëree bëri yàlla dalay wan ni noo toll rek am na lu nekk sa suuf lu ndaw lu lay fitnaal noo toll nekkee woo ko sëriñ nekkee woo ko borom xam-xam nekkee woo ko wali noo toll danga nga am ku la sonal sëriñ bee gën a baax ci dëkk bi dégg nga dégg nga ko jabar ji kumba la tudd mos naa ko fee nettali fitnaal ko fitnaal fitnaal ba sëriñ bi lu mu mujj wax inna kayda kumba asim gars yi ne ko yaa ngi yàq alxuraan de ah du kayda kumba de xam nga inna kayda kunna mu ah inna kayda kumba asim bis bu nekk <laughs> ñu indi la pexe boo xam ne doo ci mën dara dara dara xam nga ngay dundal nit yor ko yilif ko mu def loo xam ni sañoo dóor sañoo wax sañoo saaga bu ko neexee moom mu saaga bu ko neexee mu dóor su ngeen jotee ku ñëw ne la yërëm ko yow tamit rusal bërki démb kii du ma bàyyi ma fenn fekke naa histoire boo xam ne damaa xëy démb laaj ñu wax ma dama jommi wallahi ba ñu taxawoon ma ak yow foogoon naa ne sëy boobu jeex na ci kaw suuf xam nga yaa ngi dégg ma leen problème bu mel nii moo tax ci laa war a suba ak li waa ji wax cheikh mi fekke ne lépp man foogoon naa ne boobu waa ji waat na ci yàlla waat ci yonent bi waat ci sëriñam ma ne ko gëmoo sa sëriñ yaa ngi toog de doo ma weddi de ma ne ko gëmoo sa sëriñ bu leen rey nit ñi waaw ah, wax ko la ma koy wax mu mer génn en tout cas man ak moom jeex na sànni ñu chaîne bi ak kii bi ndax dafa ne day génne ndaw si ma ne ko ndaw si du génn yaay génne man nag li ma jaaxal du sama yoon nekku rek laay sonn waaw ne ñëwal non bi laay am ustaas ñëw di régler sëy mais sama xol bi dafa metti ba mën naa taxaw nekk frère ndaw si parce que jigéen kenn du ko toroxal yenn toroxal yi kenn du ko toroxal ma ne ko du génn yow yaay génn chef de quartier ngi toog wallahi du génn kër gi yaay góor nga ne ko ne génnal du góor nga génnal nga fanaan ci àll moom fanaan man daal damaa xëy di ko laajte soxna sama <laughs> jabaru gannaaw bi ne moo ñoo nga toog ndékki di waxtaan dem ma ni man de àdduna xamatuma ko <laughs> billaahi dafa ma jaaxal <laughs> kii xam na lépp mu ngi ko fekkee jeudi ci guddi la lépp mu ngi ko fette bi may ñu ma ñoom ñaan ñu ngi ndékki ma ni ndékki ñoom ñaar non man nag li jigéen ya bàyyi naa àdduna gis nga lu mel noonu lu ma yéem yéem la moo tax yàlla toujours da lay booleeg loo xamante ni mënoo ci daara moo tax looy wax xool ko looy def xool ko boo gisee islaam bañ <laughs> ay maanu talaaq ngi ñal parce li tax ñu bañ ko <laughs> da ngaa yóbba taxannus de ah, barki diw fase naa la woori rek ngay mujjee wala dama meroon wala dama nangamoon foofu ngay mujj moo tax borom bi ne Moussa sa sœur dox na topp la ba nga dugg kër na bi ko Firawna séeni lu mu wax Moussa am na ci làkk ibar ñu ne Moussa mais li ma ci jaaxal li tax wax ji mënta nekk dëgg saa siin bu tooy la mu mooy xool leen saa keesu bale ci ci ibar loolu la ñu wax mais bu fekkee Moussa la te muu Moussa la tudd lan moo tax bii siin bu tooy bii nekk siin boobu xëy na dafa xaw a jegeyoo rek coïncider ñu ñu waxee noonu waaye bi na tiitee ne xool leen la le gars yi daw biñ koy nu ko eh xale bu góor la de mun a rey leen rey leen jabar ji jóg ne ko qurratu aynin lii walak laa taqtuloo jigéen am doole wag war a tet moo tax gisoo suñu ministre ñaari baat première dame sama xarit la boo xaritoo ak moom rek am jàmm première dame kay ku mu bëgg ñu bëgg la waaw ku mu bëgg ñu man de waroon naa fexe sax mu bëgg ma ndax ñu kiyal ma sama affaire yi moom moom ku mu bëgg koo koo bëgg rek moom da ngay am jàmm ma xoola première dame jóg ne jëkkër ji qurratu aynin lii walak ay sans borom kër firaw na da ko xool laa taqtulu bu leen ko rey asa an yanfa'ana te wax na dëgg mën nañoo jëriñ aw nattaxisahu xoola xoola firaw na ni mu toll amul doomu biiram amul doom ndax bi muy seeg kële nu ñu koy waxeeti soxna si amul doom te bëgg na doom ba pare di rey doom yi yow amagoo doom yow nga waroon jël ci doom yi adopté ngay rey ñu adopté loola par force waaw noonu la ko yàlla adopté leen na xool nañ ko rey jabar ji wax yaram bi daw ah baax na nañ te en tout cas on dirait léeg-léeg yi jël benn dessin soxna sax mu ne en tout cas waroon nga kii ah, mais vraiment. ko kii o dara munoo ci dara soxna si moom yàlla nay bëgg jàmm rek mais bu bëggul jàmm arrière rek ngay def munoo ci dara moo tax borom bi nekkoo bi ñu taxawee nag ne waa léegi ku koy yar kan moo koy nàmpal xam nga jabari buur du nàmpal moom nañu ut crèche wala ñu koy toppatoo magi Moussa ndeysaan ñu fekk gars yi di wax mu nuyoo ah man dey sama yaay amoon na doom ñu rey doomam te weenam batt baa nga mën na nàmpal moo tax farajaanaaka ila ummi kay taqarra aynuha yàlla nee na yaayu Muusa danaa la ko delloo sa xel dal dootoo tiit sa noon dana ko yar buy nàmp yaa koy nàmpal du nàmp meewam bandi du ko nàmp du nàmp meewam saay-saay du nàmp meewam keneen waaye danaa la ko delloo bi ndaw si waxee loolu Firawna na ko dem na indi ko yaayi Muusa ñëw boroom xam-xam yi nee nan bi mu ñëwee ñu jox ko mu yëkkati ko xool xoolaat lu baax xel mi yedd ko ne ko am na noo koy xoolee ñu xam ne yaa ko jur de am na noo koy yërëmee ñu xam ne yaa koy jur yow nekkal nàmpalkat rek jóg dem sa yoon comme sa doom la bis bu nekk di nga ñëw ñaari yoon nàmpal ko waratoo am problème nag yow ci këru ñax nga génnee këru ban léegi yaa ngi ñëw ci pale di toog di nàmpal xam nga kuy nàmpal ci pale kenn du la wax ñaata lañ lay fay mu day jox dañuy yëkkati la jox gis nga ko de ndeysaan yaay Moussa jekkee na ca néewatul doole amee na ca teraanga di dugg kër buur laajatul audience chaque jour mu dugg ndeysaan firaw na di yar Moussa boobu buñ ko ne woon booy bii moo la nar a daaneel moo tax ku ku yabu bàyyi loolu xel bépp buur buy daanu yaay créé ka lay daaneel kuy daanu yaay créé ka lay daaneel léegi nag nañ dem ku nekk na xalaat ñeme naa daal wax Abdou Diouf moo créé Abdou moo créé Senghor moo créé Abdou Diouf Abdou Diouf a créé ah Ablaye Wade tëj na ko ba mu sonn xamul ne ab Wade da koy remplacé Ablaye Wade kii mu gënoon a sonal ci nit ñi Macky Sall moo ko remplacé Macky Sall ku koy remplacé mu kon mu noonu kenn ku ne am na ku lay remplacé na mu neex la mu naqari la ndax loolu décision yàlla la dogalam la moo xam kañ la koy def nan la koy defee mais bis boo bëggee toog ni maay ut ku ma remplacé yàlla ne la ah du noonu nag. <laughs> maay joxe sa mbir kooku suma domaine la sama domaine la yàlla moo koy defal boppam moo tax mag yi Muusa ne leen hal adullukum téema leen a wan ala man yakfulu koo xam ni mën na koo yar nàmpal ko ñu ne ko indil ndeysaan ñu dem indi yaayu Muusa borom bi ne Muusa farajaanaaka ma delloo la ilaa ummika sa yaay kay taqarra aynuha ndax xelam dal te wala tahzan bu mu tiit mu xam ni doomam mu ngi ci ay loxo yu wóor te léegi saa bu ko bëggee gis dana ko gis ne ko bokk na ci teraanga ba ma la defal bokk na ci da ngaa fàtte rek waaye xanaa xamoo ne waqatal te nafsan rayoon nga bakkan mënoon nañ laa tëj de waaw mënoon nañ laa rey comme ni ñu ko reyee waaye nag fa najjay naa ka ma musal la su ma neexoon ma seetaan doo mucc waaye bokk na ci ni yàlla musalee muusa yoor yoor njool loor ñépp ne ci kër yi sonn Moussa tiit jaaxle dajeeg benn waay ci jaami yàlla yi mu ne ko génnal jaaral nii nga dem sa yoon kenn du la feeñal waaw am na ñu ne nag wa qaala rajulun mu'minun min ali firawna kooku moom moo waxoon ak Moussa ne ko ne ko demal ne ko fa najjaynaaka musal nañ la minal xamm ci njàqale waaye wa fatannaaka it fitaal naan nañ la futuunan ay fitna bokk na ca ba nga rayee nit natt ba nga amoon yaa ngi dox amoo loo lekk amoo loo naan sonn nga nga dem ba madiyana fa labista nga sax foofee siniina fukki at ne ko fukki at dix ans exilé nga ko génn sa dëkk dem ci dëkku jàmbur muy dëkku Shuaybu nga nekk fii ahli Madyana ca waa Madyan nga nekk ca waa Madyan mu ne ha borom bi ne ko summa ginnaaw ga nag jita nga dikkee ala qadarin ci dogal bu rëy mooy ñu def la yonent dëgg-dëgg nag Moussa nag moom bu goree moom war naa war naa topp yàlla ndax li ko yàlla defal lépp ay teraanga nga ne ha ma ne la yow boo goree war ngaa topp yàlla alam najal lahu aynayn moo ndax yàlla defaloon ñaari bët nga ummi kaabil di xool aynayn yàlla defal la ko foo bëgg xool xool boo génnee dajak silmaxa da nga xam ne yàlla defal na la teraanga de walisaanan yàlla may la làmmiñ loo bëgg a wax nga wax ko loo bëgg a mos nga mos ko xoola muuma bi wa safatayn yàlla defalal la ñaari tuñ bu la yàlla mayoon làmmiñ ak yi bañ joxu la tuñ kenn du la xool xaw ma kan bu ñuy takk jabar doo ci bokk xanaa doo def jigéen ak ñii danga laa bëgg waaw doo ko def yàlla dimbale la wa mu jox la làmmiñ ngay wax ñépp di la dégg wa safatayn mu defal la ñaari tuñ wax dëgg yàlla li yàlla defal Moussa defal na la ko yow xale bu góor bi xoola li la yàlla defal ci teraanga xoola say moroom xoola sa jaar-jaar soo ko jaaree nga xam ne yeddi bi yàlla yeddi Moussa yaag moom yéen a ko bokk moo tax borom bi ne ko summa jita nga dikk ala qadarin ci ab dogal léegi nag dogal boobu mooy def nañ la yonent yaa Moussa yàlla ne Moussa sax li gën a dàkk daal li gën a gàtt mooy wastanaatuka defaral naa la li si saa bopp man daal dama def nga nekk laa soo bëggee wax ak man laajul jibril di ñëw dangay taxaw rek ne yàlla lii laa bëgg yàlla jox la kooku yow rek yaa ko am ci yonent yi yàlla defal na Muusa leneen ne ko nag léegi jeex na idhab demal anta yow wa axuuka ak sa frère bi aayaat yi ngeen yóbbu samay aaya yàlla su ko neexoon mu waar firawna te kenn du ko waar te dina waaru waaye yàlla day yónni nit ngir mu wax ak yow looloo tax nit ñi tey garabam nit ñi tey mbokkam léeg nga toll foo xam ne bu sa mbokk waxee xalaatal balaa nga def benn réaction bi parce que rek da nga day bañ nga am lu la metti moo tax borom bi ne ko idhaba dem leen wala mu ne ko wa ak sa mbokk bi aayaat yi ci samay aaya ne ko wala taniyaa bu leen sonn fii zikri ci duma tudd ndax li ma leen defal war ngeen may mën a tudd fu ngeen tollu kon nag na góor góorlu ba wala taniyaa fi zikri mbokk bul tayal ci tudd yàlla jigéen bul tayal ci julli bul tayal ci muuru bul tayal ci sikkim waaye bul tayal ci ñàkk bul ñàkk doom ba tayal bul jaaxle ba tayal bul fitnawu ba tayal yàlla buggul ko tayal bul tayal sooy ñaan yàlla bul taxaw am na ku ma ko tey nee naa gis nga ñaan yàlla doom ñaan ko ñaari fan noppalu kenn du ko def dangay ngay def ni Zakariya defoon sax di ñaan di ñaan di ñaan bañ yàlla wastaala rasi shayba waaye walam aku bi duaaika rabbi shaqiya yàlla du ma bàyyi fekk maa ngi lay ñaan maa ngi am espoir damay ñaan del ñaan dem ba quatre-vingts ans <clears throat> yàlla doog koo may doom kon yow it li nga bëgg boo koy ñaan yàlla bul yàkkamti ñaan naa yàlla ay yoon léeg-léeg seytaane la booy bul sonn ci julli gi ñaan nga ba sonn sottiwul xëy na ni déedéet nee ko maa tey damay ñaan ndax ki may ñaan lu ma ko ñaan jaamu yàlla lay nekk borom bi nee na qul maa yaaba'u bikum rabbi lawlaa duaaukum bu dul woon ak li ngeen di ñaan yàlla faalewu leen xanaa xamoo ñaan ibaada la jaamu yàlla la tàllal loxo ñaan julli ñaan sujjóot ñaan loolee jaamu yàlla la kon nag wala taniyaa waay waay waay bu leen sonn bu leen tayal fii zikri ne ko nag idhaba dem leen ila firawn ne dem leen ci firawna lu tax innahu taga na day bew jàpp na ko moo tax ma yónni ko ma yónni leen léegi nag su ngeen demee ca firawna comme daa bew buur bu bew seetal nooy wax ak moom ñaari baat mu ne danga ma dépassé ñaari baat mën ne ma tuumaal ñetti baat atteinte à la sûreté de kon nag moytul seetal looy wax ba lay du mën a am a ah, Moussa ne ko nan lay def mu ne ko fa quulaa bu ngeen àggee ba pale ba na ngeen wax ak la ñeel ko xawlan wax layyinan bu terbiku bu tegginu saa majesté son excellence monsieur le président bu la neexee sax solal solal couleur partem rek lépp ngir bu mu rek mucc ndeysaan waaye boo fa doon dem sol yére bu bleu mu ne boo demee waa PDS la nga sol yére bu rose xawma orange ñu ne waa réew mi la nga sol vert blanc ñu ne boo demee booy bi la waaw wala nga sol vert kese kese ñu ne waa PS la kon nag seetal yére bu chocolat bu nice marron beige nga ñëw daamina ko ba mu rafet toog bu la neexee sax sa waa ji ne ko daaminaa bopp fas nga ñëw toog léeg-léeg ngeen di wax xel mi leen noo boole pourtant kii ci gars yi la bokkan ah. naan dafa mënul wax rek monsieur le président sa majesté na dëkk bi nangam nangam wax ak moom li nga war a buur dañuy yaru ci kanamam koo xam ni moo yore police <laughs> yore gendarmerie yore armée te su la tuumalee amoo foo layee koo xam ne bu ngeen xeexee moo lay àtte lu ngeen jote moo lay àtte boo nee tuy mu ne tuy tuy ñaari baat ngeen taxaw war a àtte mu indi ki lay moom la bokk président lii la mu def xam nga ne benn avocat du la plaider waaw bu la plaidé tam juge yi duñ ko faale moo tax ñi fi jotee ak buur ñëpp àttekat yi dañoo ñëw ànd ak buur wax nañ dëgg nag ndax ànd ak buur ci la jàmm nekk moo tax ñu ànd ak buur moo tax booy joteeg buur defal ndànk ki ngay joteel amoo moyen boo joteeg moom ñaanal yàlla te ànd ak yar loolu la bëgg même bu dee buur bu saay-saay noonu la ñuy nekk ak moom ñu bàyyi xel fan yi maa ngi dégg benn projet de loi bu ñu yëkkati Mali gaa yi coow ñu taxaw yëkkati nañ ko Mali Gambie lañ ko njëkk a li ma jaaxal na gis nga tubaab yi bu ñuy tëral yenn yi dañuy xool dëkk yi yi gën a moyen problème walla yi bëri problème ba talatuñ ko ñu jiital foofu dañoo dem Gambie ñu ne ñu am na benn député boo xam ni nee na jàkka yi ci mbedd yi dañ leen fi war a jëlee quoi ci tali bi jàkka yi ci tali bi dañ leen fa war a jëlee ndeysaan gars yi coow ma ne gis nga lii fi mu jëm ay makru layle la makru layle de makru layle nag daanu roog Macron waaw seeni pexe la de gis nga tubaab dalay booleek sa mbokk taxaw fële mel ni nekku ca ki mu lay boole nag xam nga lu muy doon marionnette lay doon mooy koo xamante ne ndeysaan moo kuddulu sa yem bu tàngee ñu dugal ko bu ñuy añ jël kuddu gu ndaw xam nga kudduluus moom ci digg cin rek lañ koy dugal cin li di bax appel yi bax ñu dugal di yëngal di yëkkati di teg bu añ jotee kan mooy añee kudduluus ne ko booy yow sa affaire jeex naa dama toog fa jël benn kuddu añee loolu nag bépp président africain bu ñàkk bopp wala africain yi nekk ci état du ñu xalaat ëllëg fàtte seen borom ñooy lu mel noonu ñoom lay dal jàkka néegu yàlla wa annal masajida lillah yàlla nee na jàkka yi maa ko moom yéen buur yi yàlla leen jox nguur de al qul illahumma malikal mulk yàlla jox la loolu defatoo dara lu dul ci sa nguur ngay xeex yàlla dangaa gàtt xel lan lañuy wax Mali 40 point la ñu tëral imaam wax na ci lenn li am nañu ci wax seen projet de loi boobu nga xam ni ministre des affaires étrangères moo ko génnee bokk na ca dañoo bëgg a tere julli ci mbedd yi ak rii yi ci Mali ñu ne léegi jàkka yi bu feesee kenn amul droit julli ci biti bu jàkka yi feesee ñu ci des ku nekk na seeti feneen fu mu dem mais amatul julli ci biti amul julli ci ci tëli yi ma ah, mi ngi bëgg a metti de li tax ñu ciy wax nag mooy dëkkandoo day wàlle dëkkandoo day wàlle am na loolu suñu sàgganee Afrique mi ngi yàqu rek ñi ci kaw xam nañ ñi koy yàq nag xam nañ ko de waaw ñi ci kaw seeni tëralin lañuy def beneen bi àgg nañ ci ni kenn amatul droit tabax jàkk lu dul état bi mooy xool fu ko neex ni mu ko neexee bu ko etaa bi validé wul doo tabax jàkk ma ne waaw loolu de moom am na ci àdduna bi léegi beneen bi bokk na ci ñu ne ñooy choisir imam yi ak temi xutba yi léegi ma ne ah yëf yaa ngi bëgg a metti nag waaw beneen bi ñu ne ñiy def presse di génn ci biti di woote di waxtaan di def conférence léegi kenn amatul droit ñëw rek wax ci thème bu la neex balaa nga def conférence da ñëw tàggoo ñu ne la boo demee waxtaanal thème sàngam xam naa boo demee waxtaan islam et la laïcité waxal yooyu mais tawhid moom na fi génn yooyu la ñu bëgg rek dina lu mel noonu àdduna bi foofu la jëm suñu deful ndànk dana wër fépp nag fitna yooyu yépp nag mi ngi sunu kanam état bu demee ba muy tànn imaam su boobaa na nit ñi jooy xam ni musiba am na état mooy tànn kiy war a xutba ah waaye ndaw xutba bu neex kon kenn amatu droit wax yàlla nee na yonentam nee na fi mu jëm mooy fa firaw na ak gon fa Atatürk ak gon lu xam ngeen Atatürk àggoon na ci Tunisie àggoon na ci yeneen dëkk yoo xam ne ba Tunisie léegi dañuy di nga julli fa ñetti waxtu yu tegloo amul tunisien bu ko ñemee nga jullee fa fajar jàkka boo dem renseignement généraux ñu nga fa soo ñëwee julli si rek ñu foto la raf nga ñëw julli si tisbaar foto la tàkkusaan timis moom xaw ma kañ waaye police yóbbu na la ñu xool lu tax nga ñëw tisbaar tàkkusaan timis est-ce que doo terroriste moom daal il faut nga dem ni julli gaa yi rek julli fajar yi ci des nga leb boo demee sa kër óbbale julli ko fa loolu lañ bëgg loolu nag fitna gënu koo rëy ci kaw suuf léeg-léeg nit ñi dañuy wax yenn mbiri tuddee ko fitna wallaahi mbokk yi fitna bi gën a rëy mooy dox sa diggante ak jaamu yàlla duma dañ mukk di faral di fàttaliku ku mel ni Umar ibn Abdul Aziz ñu baax ñooñu foo leen tuddee rek da ngay def sax ñoo xam dañuy jàpp ni da nga leen di tudd lu bari xam nga tax ñu leen di tudd parce que ay exemple lañ ñaari at la def ak ñaari weer walla ñetti weer yu manqué Umar na Abdul Aziz dañ ko posone dañ ko posone jaam bi ñu joxoon poson bi mu def ko ci lekk Omar ibn Abdul Aziz ki ko doon toggal ñu def ko ci lekkam indi Omar ibn Abdul Aziz da ko xool ak ci yàgg ne ko way xaq li ma wadaata ma fii taami ne ko yaa alku lan moo tax nga def poson bi ci sama lekk ak teraanga bi ma la defal lépp xoolal teraanga bi ma la defal jaam bi jooy rëccu na moo tax looy def danga koy xool balaa nga koo def dignité kenn du ko jaay jaam bi jooy jooy xool ko ne ko umara banu umayya amaruni dalik ne ko sa frère yi nga xam ne ñooy gouverneur yi ñi nga bokkal papa bokkal ñoom ndey ñoom ñoo la posone jox ma ko ne ma buñ ko defee dinañ ma jox alfay diinaar ñaari junni diinaar ma gore nekk gor Omar ibn Abdul xool ko ci yàgg ne ko ñaari junni diinaar yi la jox delloo ko bayti maalil muslimin anta xurrun fi sabilillah laa ilaha nit rey la ba pare nga goreel yi islaam rek mën a yar ku mel noonu la nga xam ni moo la ko lan moo tax nga posone ma mu ne ko umara banu umayya sa frère yi ñoo ni bu ma la posonee danañ ma jox ñaari junni dinaar su ko defee ma daal di gore Umar ibn Abdul Aziz ne ko ñaari junni diinaar yi moom delloo ko baytu maalil muslimin ndax ñoo ko moom amaa ngore gi nag goreel naa la may naa la nga gore demal sa yoon jaam bi mënul dem toog di jooy rek di mbëkk miir yi Umar ibn Abdul Aziz mbokk yi jaam bi tiit na lox na gën a sonn Umar ibn Abdul Aziz ndax jëndee na ko lu ko jarul Omar ibn Abdou Aziz dong ci kaw suuf moo mës yore état moo mës yore état dem ba dëkk bi jekk defar lépp ba mujj mu ne ku amul jabar yégle leen ku amul jabar na ñëw baytimaal trésor jox ko mu takk jabar ak li muy céetalee lépp ban état moo ko mës a def ci kaw suuf ku amee bor ñëwal trésor a koy fay bann état moo ko mës a def ku bëgg a dem aji ñëwal trésor moo lay jox nga aji ci baytimaal muslimin mbokk yi Umar ibn Abdul Aziz nekk koo xam ni àddunaam yépp jaamu yàlla la ko def topp yàlla ñaari at ak ñetti weer changé na àdduna defar na ko ba bukki ak bay juboo defar na ko ba till ak bay juboo defar na ko ba dund bari na ci dëkk bi ba kenn tàllatul loxo yelwaan kon bu ñu ma gëmloo ni àdduna mënuñ ko defar déedéet ku jub te baax rek mën nga defar àdduna mbokk yi Umar ibn Abdul noonu la nekkee kiy jaay amatul problème mu jaay kiy jënd amatul problème mu jënd boole na mu tëddee day toog ba ci yàgg jooy jooy lan lay jooy yàlla samay bàkkaar lay jooy bu yeboo nga xool ko ne ko Umar amoo bàkkaar yàlla xam lu ci nekk waaye bàkkaar bu ñu lay waxal xëy na sa digganteeg sa borom ndax laa nu zakki ala allahi ahadan waaye yaakaaruñu ko Umar ibn Abdul Aziz lan la mujje wax bi muy gaañu tilka daaru laaxira najcaluha lilladina laa yuriduna uluwan fi l ardi wala ab buur mooy deene kër ga ca àjjana yàlla nee na du ko jox ñu dul ñu suufe noonu la def jooy defar dëkk ba mu baax ay freeram am ñépp a tedd waaye la mu leen xañ moo leen metti ndax dañoo jàpp ni da leen a tollaleeg baadoolo yi pourtant seen salaire ñu ngi ko doon percevoir nekk ay gouverneur nekk buur waaye nag comme da leen a xañoon surfacturation da leen xañoon détournement da leen xañoon lekk lu état bi moom comme dañu ko tàmm bëgguñu koo bàyyi kii baax nekk seen frère seen doomu baay ñu walbati ko di ko rey wallahi kii mooy gént Umar ibnul Xattaab ba Umar ibnul Xattaab day nelaw ba ci àgg na ne kërëb ne nii man ashajju bani umayya mu yeew kan mooy borom cicatrice bani umayya bi kooku day tedd na kooku day texe na gis nga loolu ay sëtu Umar topp nañ ko ana borom cicatrice banu umayya ba gars yi ku am doom mu baax rek nga jàpp ni moom la Abdullah ibn Umar jàppoon na ni doomam la noonu lañu koy jàpp di ko jàpp di ko jàpp ba ndeke yoo umma asim umma asim ma Umar ibnul Xattaab fekkoon muy xuloog yaayam benn guddi umma asim nekk ak yaayam Umar ibnul Xattaab di wër di rond ba ci yàgg mu ngi dégg benn jigéen naan doom ji Fatima mu ne naam mu ne ko kaay jël ndox nga yokk soow mi marché léegi luuma bi bëri nañ nit boo xëyee jaay ko mu bari ndax ñu mën a am añ ak reer doom ji ne ko yaay duma ko yokk ndax amirul muminin da koy tere mu ne ko fii man ak yow dong nga fi nekk amirul muminin new fi mu ne ko yaay bu fi amirul muminin newul ki bind amirul muminin ak ñun mi ngi fi di ñu tiim Umar ne booy bi rëddal ma fii xàmmeekaay mu rëdd xàmmekaay Umar xëy suba teel dajale doom yi woo leen ñu ñëw ne ku bëgg jabar ci yéen ñenn ñu ci ëpp am nañ ñépp toog mu ne ko bëgg jabar gis naa jigéen boo xam ne ku ko takk am jabar Asim ne ko papa man doomu Umar moom moo dem takk ndaw soosu Asim ak ndaw soosu ñoom ñoo jur maamu Umar ibn Abdul Aziz kon nag meen la bu bàyyi ko ci lu baax waaw meen waaw wal baladu tayyib yaxruju nabatuhu bi idni rabbih walladi xabusa laa yaxruj illa nakida bu ñuy wax jigéen sonnal ci sëy bëgg doom ju baax a tax bu ñuy wax góor sonnal ci sëy bëgg doom ju baax moo tax waaye topp nguur bay xeex yàlla bay xeex jàkkay yàlla bay xeex islaam lépp tubaab bi ràbb na terrorisme suñu biir ba amatuñ jàmm gouvernement africain yi ñu ngi tëj seeni doom ñu ngi leen di toroxal ci taqal leen ak terrorisme te xam nañ ni loolu amul ñoom leer na leen ni ñi koy def Occident la waaye nag alalu àdduna moo leen nax moo ndax bis di ñëw ñu fàtte ko fàttaliku ko bis boobu mooy kañ allahu akbar yowma yaqulu alxaakim halaka anni sultaaniya bis dina ñëw nga taxaw ni yàlla nguur gi ma jëloon dara jaru ko woon alkuna kon mbokk yi ñu bàyyi xel borom bi ku beew rek am na yar bu mu la dóoree di seetaan moo tax borom bi ne Muusa dem leen ngeen wax ak moom wax ju jekk buur dañuy wax ak moom wax ju jekk dañuy wax ak moom waxu teraanga dafa mel ni waxtu yu dugg na incha allah bu darsi biir ñëw ñu kiyee ñu commencé rabbana innana naxaafu an yafruta alayna aw an yatgha salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu